appel à la citoyenneté. Et je pense que le président Macky appel Sénégal propre, pour un Sénégal hygiénique. Et je pense que euh, la population sénégalaise ñoo si war a impliqué moo tax tey ñun en tant que mouvement citoyen yëngatu si développement donc lépp loo xamante ni gis nañ ko ngir euh, participer si développement askan bi dañ koy def donc moo tax lii. Euh, Euh, suñu programme la bokk donc assainissement ak hygiène ak lu jëm pense que ni euh, dafa bokk ci dynamique bi nga xamante ni le mouvement civique jëm loolu lay dox moo tax tey lii dañ ko rafetlu rafetlu ko parce que yëfu président Macky Sall mais yëfu Sénégal la yëfu population bi parce que d'abord bi ñuy wax set mooy indi wér te wér mooy indi jàmm te jàmm fu amee rek réew yi mën a am liggéey donc tey dañuy gën a ñaax rek la population war a xam ni kat set si sa biir kër d'abord set si sa buntu kër set si mbedd ndaxte euh, te à l'instar des pays des pays développés tey lan moo tax ñu yegg ci développement hygiène moo tax ak propreté donc tey ñun dañuy voyagé def si yeneen dëkk yi mais di nga euh, toog te doo gis suuf donc tey je pense que ni loolu ñun population ñoo ko war a njëkkee d' moo tax tey appel bi bi ñu def ñun dañoo ñëw te it fas yéene nañ euh, comme ni ko la volonté du président Macky Sall bëggee chaque mois le début du mois ñu ñëw taxaw seetal suñuy gox parce que it euh, suñu gox ñoo ko mën a defal ñu xaar kenn koo xamante ni dañ ko defal mais aussi di ñaan euh, état bi ñu def si ay mesures d'accompagnement parce que aussi dañuy wax rek set li ñuy génn bale teg mbali bi te du ñu am loo xamante ni moo koy yóbbu je pense que loolu aussi ñu ngi ñaax ñi nga xamante ni tey ñooñu incité pour un Sénégal propre ñoo aussi di def ay mesures d'accompagnement